كي لا دفاي لاج مانام نياري بيتي بن بي مودي زمام الورى قصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قال بن انيس قلوب من لم يحبوني على وجل ولا يلاقون ما راموا ولا البابا من يوحك بفعل موقف أستفسركم عن معنى هذين البيتين حسب معلوماتكم زمام الورى عصري لدى الله في يدي sëñ Tuubaa ko wax ci xasida dañuy wax midaad yi ne nofub bindeef yépp mu ngi ci loxoom fa lépp lu mu sàkku ci boromam loola daal di wommatu ci ñor maanaam ci mat ci sotti nga xam ne dara desu ca amatul luñ cay sonne lépp dafa mën lam waaw waaw ci Ahmadou Bamba radiyallahu anhu dafa toll woon ci martaba boo xam ne fa toll alwara bu ñu ko waxee lu gën a bari ci jamono ci làkk ci waxi arab mu ngi fi jublu doomu aadama yi waaye foofu mu mu tolloon di ko wax ak waraa ji mu wax du doomu aadama yi rek ndax picc sax balaa naaw tàgg ko wënd sax balay rey janax tàgg ko ngelaw sax yi naaw tàgg ko lépp diiwaan ba nga xam ne fa gaa ñu baax ñuy daje bu ñu fa toogee kenn ku raf ci lu dul ndigalam sax ragal nañu yàlla rekki sa imaan sa gëm nga dee ci texe bi lépp lu mu sàkku ci boromam mu loola dal amit koo xam ne kii jaam yi suñu borom bind yépp yow yaay bërëbu xoolinu yàlla ci kaw suuf yaay bërëbu yërmande yàlla ci kaw suuf lépp lu jaam di am mu jóge ci borom ci sa loxo lay jaar loo sàkku ci yàlla mu yomb la qulub man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquuna maaraamu wala baaba nee na xol yi ñi nga xam ne soppuñu ko ci njàqare la ñuy dëkk ci njàqare la ñuy dëkk la ñuy sàkku duñ daje mu mukk duñ jaar ca buntu ba it buntu bañ koy amee mukk ci àddina waaw euh, euh, li tubaab bi wax contexte bayt buñ ko nee coqet faw nga gis pasi dëgg maanaam mawdu ba taxoon mu jóg waaye fii ci bayit bi rek ci boppam li mu tekki am nañ ci ay shawaahid yu doy neenu nee na ba mu njëkkee gis lawxul maxfuus baat bi mu ci njëkk a jàng moo di shaqiya man lam yahwak képp ku la soppul texee dina la mu njëkk a gis ci lawxul maxfuus nee na alwajhu allazi yuhibbuni yabyaddu yamujuhu suada tabyaddu képp koo xam ne sopp nga ma sax xar kanam day leer nañ keroog bis ba nga xamee ne way texe ñi rekk la seen kanam di leer kon ku ko sopp texe ku ko soppul kon doo texe ci njàqare ngay dëkk ndax ko lépp loo am ci lu baax ci moom la jógee ci moom la jaar yàlla la ko jox ci moom la ko jaarale te ci dara jaam la ku ko soppul faw nga nekk ci texe nga nekk ci njàqare faw nga nekk ci texe bi al mahabbatu bi ma gannaaw moom dafa sopp sama borom ba bi mu seetee xol yépp ak cofeelam ak cofeelu yonent bi ci xol sëñ Tuubaa la mu ëppee ci ba tax mu tànn ko def ko muy xaadimul muxtaari nee ñu al jazaau min jinsil amal pay ci xeetu bor la ni nga xamee ne ku def bàkkaar boo xam ne dafay waral sa texee di sa fay ca ëllëg ca jahannama fay gu niroog bàkkaar booba lay doon wala gu safaanoo moom ngir naqaral la nit ku rëy neenu bu keroogee dañ koy def sànq leen nit ñi di ko dëggaate keroog bis penc ba ni nga xamee ne cëri doomu aadama yépp benn cër bu ci nekk dafa jàkkaarloo bunt ca safara nee ñu àjjana juróom-ñetti bunt la waaye safara juróom-ñaari bunt la moo maanaam dëppoo juróom-ñaari ndénkaan yi suñ borom dénk jaam mu di ay cëram Sëriñ Tuubaa nee na wa kullu udwin qad asayta abada biha biha tadxulu baabaha gada ni nga xamee ne cër yi noonu la am sila bu bu dëgër maanaam relation maanaam dal ni mu jokkoo jokkoo gu wér ak xol nga xam ne cër bu mu ci nga jaamoo ci yàlla xeetu jaam mu nga jaamoo yàlla leer gu nuroog moom noonu lay defee taas ci sa xol di ko setal ba nga xam ne boo dëkkee jaamu yàlla ak def lu baax te raxuloo ci benn lu noonu lañ sete di set di set di set ba muy sell naka noonu itam moy yi gépp moy ak xeet lëndëm ga muy dugal ci xolu nit ki bu fekkee ne nit ki dafa dajale ay moyam ba mu àgg ci rëynu rëynul xal bi li nga xam ne sopp koo koy texeel yàlla dafa koy bañ loo dootu ko bëgg mukk ci àdduna mooy pëlu bu man lam yuhibbuni ala wajhi koo xam ne boo ko soppee da ngay texe boo texee dee doo ko sopp bi mën moo tax ne bi mën li xayri nasal na suñu borom dàq na képp koo xam ne aj texee di nga mu jëm feneen furul ci moom wala ilaquuna maaraamu walal baaba du ñu dajeeg la ñu sopp la ñu sàkku ndax li ñuy sàkku mooy lu ko naqari wala lu ko wala lu ko wala lu mu te gannaaw kii seen kilifa raisul ashqiya kilifa way texee di ñëpp di iblis sëñ bi xeex na ak moom ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàggal ko ne ko tépp ci suuf ba mu tëdd ba naagu ci moom keneen ku ko gën a néew doole taxul ñuy wax ah Ndakaar dafa xaw a sori te mu guddi ñaari bayit yooyu mayam ci foofu daal bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله يا